Bienvenue sur Salam Vision. di leen ziar moor xobar xobar ngeen àndaloon tey nag damaa ñëwoon fi nga xamante ne mooy géejawaay dëkk ki nga xamante ne mooy meeru géejawaay di Ahmed Aidara fas yéenee dugg laaj askan bi lan mooy seen kaddu ci Ahmed Aidara waa géejawaay Ahmed Aidara yéen a ko fi teg yéen ay génn seen kaddu moor xobar xobar ci biir ayca gaay euh, seen émission kaddu askan bi ñu tax ak sunu benn papa fas yéene koo laaj lan la xam si askan bi ak. lan mooy kàddoom si askan wi papa ñu ngi lay nuyu. waaye maa ngi lay nuyu leen bu baax yow boo xam ne ñëwoon na pour laaj ma question bi te problème de Ahmed Aïdara. papa tur bi nan la. Lamine Doumbia. Lamine Doumbouya Lamine Doumbouya tey nan nga gisee taxawaayu Ahmed Aïdara si waaye nouveau maire. Aïdara kay kii wax ma le tout de façon yeneen mais géejewaay réussir na leer na ma carrément man xàmmee naa ko bu baax maa ngi ko keroo ñëw na ba suma néegi di fii ci yàggul noonu. yow mi bon mu sukk soo demee di wax Doumbia ñaani na ma léegi dafa jógee gàkku kii fi rek mu ñëw fii maa ko dernière ñaani fii man ne ko soo demee yaa ngi gagné soo demee nga ne ko Doumbia rek di la wax c'est vrai comprender na Ahmed Aïdara lépp lu mu dundaa am àdduna yëpp géejuwaay rek la bëgg waxala xol bi jëf bi géejuwaay rek ku leen joxee ci premier ci géejuwaay boo xam ne rakk président bi erreur bu rëy la mun noo defar ci géejuwaay mu dem dëkkam mu defar ko comprendre ku bëgg a defar géejiwaay ku juddi dëkk géejiwaay moo ko mën a bare yërmande géejiwaay moo ko mën a defar géejiwaay kooku moo géejiwaay réussir na bépp kon yow soba ça veut dire que su ma la déggee waroo gis euh, importé di jël gis local di jël importé local ay dara importé euh, local la quoi si réew mi moom fii juddoo fii la yoroo fii la màgg ama sax moo ëpp président bi sax ci doole mm-hmm. ay Aïdara moo ëpp président bi sax si ak ak i ak fulla ak fayda am Amadou Seydaw ku ko xamul xamul émission kiroo la tuddee façon Walfadjri et kii nu mu tudd télé Youssou Ndour benn waa ji ku journaliste ko mu ne ko Amady Haydara man xàmme naa la tase nañu makkatul mukarrama yaa fereen tout ku baax encore ku tàlli la ku bëgg géejuwaay jërëjëf kon tey lan ngay xaar Amady Haydara si moom géejuwaay ko xaaree kay mu bañ a yokk yokk balaa deux ans comprendre géejuwaay nekk commune Paris deuxième mandat bi ñu jël ko rek toog c'est am na jom am na xam-xam am na fulop ak baaxaay. dëgg la sa dernière kàddu lan nga koy ñaax. man kay mën nga ko ñaani rek guddi fan ak wér ànda doomu géej waay rek. xam naa ci kanam tuuti soo ñëwee taalibe bi doo gis benn suuf dana ko def yëpp godoro yéen boobu. am na ko et dana ko def. jërëjëf jërëjëf mbokk internetu Kiki TV ah ba tey ñu ngi géej waaye dañuy dugg sur le terrain xoolaat ñeneen. tey ñu ngi doon taxaw ak suñu papa Lamine Doumbia ku xam Ahmed ay Aïdara ku ku la xam la jërëjëf baax dégg naa seen baat bi ak mantulaay toujours seen rajo bëggaan rek la maa ngi ko jëba ñaanalal télé ñaanalal télé bi soo ko calculer dafa nurndoo commune bëggaan am fulla fayda bëgg Sénégal liggéey boppam jël bi alalam joxor ci askan bi sans trian sans sàcc dëgg la ñaanal ñaanalal teel a bismillahi rahmaani rahim xatallahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi man jalla yasfahu indahu la bi'idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfihim wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم inna fatahna laka fathan mubinan liyagfira laka llahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yu'ti man ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqiman wa yansuraka llahu nasran aziza wa yansuraka llahu nasran aziza wa yansuraka llahu nasran aziza wa yansuraka llahu nasran aziza wa yansuraka llahu nasran aziza wa yansuraka llahu nasran aziza wa yansuraka llahu nasran aziza ya allah ya jul jalal karam amadi haydara ci kaw ci kaw ci kaw guddi fan wér bi jaay sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba tey ñu ngi géejewaay duñ fi génn dëkk Ahmed Aidara bro ñu ngi lay ziar. ndax nu ko zaalika frère. Euh, tur bi nan la. El Hadj Mbaye Thiam. bi El Hadj Mbaye tey dañoo gis ne ngay yeewoo géejewaay ay dara doon euh, nouveau maire géejewaay lan la la def yow ak fan la la toll ak lan nga si xam. bon en fait euh, li Bécaye Mbaye naan yuuxu jub na fuñ ko foogee wut wax boobu tey Ahmed Aidara ko moom. Euh, mu doon lu ma bett loolu man Tamba jóge maa ngi ni doog a ñëw mais sa euh, démb bi ma information bi dalee sama m'a tellement surpris waaw mais nag man li may wax mooy doomu géejawaay la wax na te yàgg naa wax aussi bañ jox ko géejawaay waaw tey géejawaay ngi ciy loxoom man tous que j'ai à le dire mooy dañ koy accompagner ci lépp bon liñ koy ñaan mooy gérer yombut tabaxal nañ ko hôtel des villes bi ba mu yegg yëkkati ay caabi des ju jox ko ko géejawaay nag li fi xew ren ñëpp xam nañ ko li fi xew ren ñëpp xam nañ ko. léegi su ma la déggee euh, accompagner ngeen ko si biir accompagner boobu lan ngeen xaar ci moom. non man si je di dis vrai moi je suis APR. Mm-hmm. yow mii waaw moi je suis mais nag victoire victoire la. Mm-hmm. ak nu mu ñëwee victoire la bett nañu trop. sagam Lat Jooba daanu golfu ñun lépp ñu bett fi mu nekk nii mais nag di wax ne géejawaay bu yeboo kenn ku ci ne na nga xoolaat sa bopp politiciens yi s'il te plaît bu leen falu rek bu leen falu rek fàttali leen fal mm-hmm. mooy indi yii tey Ahmed dara nag ku maîtriser géejawaay la ku ko miin la ku ko xam la mm-hmm. te gëm naa ne bu toogee dina fi def dara waaw di ko wax ne Ahmed mon frère lépp a ngi say loxo géejawaay gépp a ngi ci sa loxo te nu ne wax nga ko fajar gune yeewu nañ ko di la déglu waaw APR bu ma ngay wax ak yow ngir yàlla ak yonent bi defaral géejawaay. kon su ma la déggee li mag ñi naan euh, politique oto bu pan la ñi koy buux bu oto ba tàkkee ñu baleen fa kon yéen xaaru leen loolu Ahmed Aidara si moom. ah bu ko defee juum de ko defee juum ndax gis na li dal alin Sall. gëm nga ni dina yóbbaale ñëpp. <laughs> nit ku oyof la. waaw ñëw na ba sama buntu kër un jour ummu mi dëkk fii ci Bayal école 14 bi moo ko fa indi. ñuy waxtaan ma ne ko man franchement parler ni ma mer ak Alioune Sall ak euh, Ablaye Mbaye wax dëgg fa yàlla. parewu ma pour quitter leen. waaw après am naa sama benn confrère Mouma Ndiaye ku jar a bàyyi xel la mi ngi fii moom it. waaw bu ko mënee daw seeti ko daf ko ci kawam. sinon kooku mooy gi géejawaay ngi noonu. jeune boobu noonu kuñ bàyyi xel la. école 14 bi nga xam ne moom kese la APR amoon wan na leen ni mu te loolu noonu amaana rëyu APR la waaw li ma lay wax ni dafa xoot mhm. biir APR laa ne mais loolu tey ji bu fekkoon ne oyofal nañ seen bopp tuuti ànd ak booy bi mhm. wax dëgg fa yàlla am na yu bari ne leen ci dimbali ba ci Modou Bousso mi nekk no Sam Notaire mhm. buñ demoon tafu ci booy bi toog waxtaan wallahi azim Modou Bousso gëm naa mu am dara fii nii madame mii de wax dëgg fa yàlla gars yi ku ma ci dajeel ñoom tëldoo gars yi ñoom ñëpp dama la yuuxu jub na fuñ ko foogeewut comme d'habitude rek mais Ameth bon sens géejawaay ngi noonu teg nañ ko sa loxo waaw tu n'es pas démérité da yàgg a liggéey franchement parler waaw yal la yàlla taxaw yal la yàlla sàmm aar la mayul gudd fan ak may la kattan goo yoree géejawaay nag yal la yàlla defal jàmm sama gars yi bég naa trop. jërëjëf ñoo la gën a kontaan ah noonu lay demee rek kaddu la ku nekk da ngay xool kaddu wala neex nga sànni ko noonu la ñuy doxantoo du ñu bàyyi du kii ma taxawal nag euh, du présenté boppam man maa koy présenté jaara la doomu waay la doomu marché sam la jaara nuyu naa la. fay naa la sama rakk ju baax ji waaw kañ maa ngi lay fay lu bëree bëree bëree bëri. jaara en tant que doomu géejawaay tey ñu gis ni géejawaay changé na. Mhm. Aline Sall nekkoon na fi. Mhm. barki Demba Ndiaye ay Aïdara gañe na ko lan nga xalaat si loolu. ah luñ ci xalaat daal lu rafet rek. parce que ñun dañ doon ñaan yàlla suñu fii nii ku mu nekk doomu géejawaay da luñ doon suñu borom may nañ ko ñu ngi sant nag yàlla bu baax a baax waaw kay. yéen a ngi sant yàlla kon ça veut dire que su ma leen déggee mm. yéen da ngeen sonnoon si importé bi local bee leen gënal. waaw local bee ñu gënal fuuf ndax lu ñu mun a am daal suñu doomu réew daal moo ñu ko gënal muy Ahmed Aidara. ñu sant yàlla bu ba mu jële géejawaay mm-hmm. lan ngeen xaar ci moom. Mm, lu ñuy xaar ci moom parce que dañ ne mbooloo mooy doole de nit ku nekk. nit moom mooy garabam nit ku nekk nit moom mooy posanam ay dara nag na xam ne nag doomu géejawaay la parce que ñun ñoo ko fol parce que dañ doon ñaan yàlla suñu doomu réew ku dëkk ci géejawaay bi banlieue bi toog ba yor suñu réew ay dara nag bu loxoom setee nag yaakaar naa dinañ ko gunge ba pale na loxoom setee xool waa géejawaay lan lañ bëgg xool waa géejawaay lan lañ manqué xool waa géejawaay lan lañ nekkoon ay ati at di ko jooy mu toog wax ak doomu banlieue bi toog wax ak ñun xool parce que nit ñi moom sax gaa moom mënoo def moom lu neex ñëpp waaye tamit dangay jéem parce que suñu borom ñu sàkk mënul def lu neex ñëpp waaye na amet jéem bu jéemee daal ñun duñu fal kenn ku dul Ahmed Aidara parce que safoo nañu faale nañu yëg nañu chaque jour mi ngi ci kaw di xool sama mag bi tawat lu ko metti wala lu mu bëgg chaque jour ay Aidara di ko ci dawal kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax ba ko suñu borom mayee mu toog nag ba ci fu ñu bëggoon ñu ngi koy ñaanal daal o nan daal na nekk daal ci lu neex waa géej waaye dinañ dem ba gunge ko pale bu neexee yàlla. incha allahu rabi kon yow ça veut dire que su ma leen déggee mm-hmm. tey yéen seen liggéey ak Ameth Aidara du liggéeyu court terme liggéeyu long terme la pour ànd moom ba pale. incha allahu rabi mais wàññi boo gis si benn lay commencé quoi. Mm-hmm. tey lan mooy sa dernière kaddu si moom loo xamante ne ñaax la pour moom. Mm-hmm. dañuy ñëw naan la lii laa bëgg lii laa bëgg nga dem ba ñu fal la nga fàtte leen Ahmed Aidara luñ koy ñaan bu mu fàttee doomu waa Géejawaay li ko fal bu mu ko fàtte ndax léegi dëkk bi léegi kenn moomatu leen élection yi lañuy xaar mu ñëw ñu jël suñu carte bu ñu am dem votel ki nga xamante ne moo ñu saf moo ñu safoo moo ñu faale waaye tamit boo toogee tamit boo ñu fàttee nit moom dañoo mën a defante waa banlieue bi lu leer ni mi nag laa ko wax bum ñu fàtte bum ñu fàtte ndax ñun ñoo ko fal fii bu ñu fàttewulee rek en bu ñëwee man maa leen wax lii de damaa bëgg ngeen jàpp ko Ahmed Aïdara bu fàttewulee banlieusard bi dinañ dem ba gunge Ahmed Aïdara pale barke Seydina Muhammad ndax ñëwal na suñu kër gi ñu ne ko Ahmed bu neexee yàlla li nga bëgg dinañ la jàppale ba nga falu kon nag moom bu ñu fàtte daal bu ñu fàtte parce que ñu ni suñ carte lañu moom de ñun ñoo moom suñu carte carte yi moomuñu nit ki nag mun ngaa ñëw di politique neexal nit ñi xaalis ñu ñëw lekk sa xaalis da duñ la voter ndax léegi nit ñi léegi dañoo yeewu ñëpp a yeewu nag kon nag moom na yeewu ànd ak nit ñi xool luñ ko jàppee xool luñ ko falee mu nekk ci loolu lool daal laa doon tàggatoo wee mu ngi noonu ah, Ahmed kon nag li ma lay dénk mooy ni nga defee woon porte à mhm. dugg ci biir kër yi defaatal noonu porte à xool lan moo naqari waa géejawaay nga faj ko kii loolu lay wax kii nag suma mag la maam jaara loolu dafa yàgg moom a yar fii <laughs> tur nan la Aïda Mbaye Aïda Mbaye nga bëgg a wax si Ahmed ah, lu baax li muy def si koñ bi rek Ahmed baax na am na yëg si bàkke na bi Moustapha teel ngaa tagg Ahmed Aïda mu ñëw billaahi boo ko woowee mu ñëw Ahmed looy def la woo ko mu ñëw ndox sax boo koy tànga boo woowee Ahmed mu ñëw mu ñëw taalal la gaz bi taalal la gaz bi du tànkam lu kenn bëgg dee mooy njaay bi suma jëkkër ji feebaree ñu woo ko daa ñëw ba fii seet si ko sëde bi moo fa baax na amet yëg na nit amet yërëm na doomu aadama amet sagal na doomu aadama amet am na yërmaane si doomu aadama ci barke Nabi Moustapha Ahmed nag nee naa ko li recence mérite la ndax doomu aadama yi muy yërëm doomu aadama yi muy sagal looloo tax yàlla tere ko mm. doom aadama boo ko tereree yàlla tegal la boo ko sagalee yàlla sagal la boo ko toroxalee yàlla toroxal la Ahmed tey lan ngay xaar ci moom pour mu def ko biir géej waay li may xaar ci moom kii foola tobersi na Ahmed fii day baaxaat bak siñ baax dina def raa géej waay ba mu baax coono yi jóge na yéje waay xiif jóge na fi mar jóge na fi si bàkke yàlla tur bi nan la maa ne ñu ngi yaay booy tey euh, en tant que euh, doomu géejawaay doon meeru géejawaay lan nga xalaat si loolu ak euh, fan la la toll xanaa békki rek békki amet kontaan ci moom di ko ñaanal yàlla nag lii ko yàlla yéen yal na ko yàggale ci jàmm ci barke yonent bi kontaan nañ ci moom bëgg nañ ko dañ ko doon ñaanal mu jël ko jël na ko yal na ko yàlla defal jàmm ba man koo yor ci xéewal ak barke ci barke yonent bi yal na yëpp yomb mais tey lan ngay xaar ci moom li nga xamante ne amul géejaay pour mu def ko biir xanaa tali yi rek ak lamp yeeg yi fii na defar yëpp ba mu baax soo defaree tali yi ba mu baax defal làmp yi defal xale yi ñu liggéey rek ñëpp bëgg yal na ko yàlla jàppale ba mu ko ci kàttanu suñu borom. allahumma amiin allahumma amiin yàlla ko yëpp ci kàttanu suñu borom loolu laa koy ñaanal. jërëjëf yaay booy. yal na yàlla yeggale. jërëjëf kii tamit doomam la yow tamit yow sax ko amee ay dara nga du doomu maire bi lan ngeen xaat tey si moom. kontaan ci kontaan ci ndam li nag bëgg nag ma mu góorgóorlu jàppale jeune géejawaay bu ko kenn ree ñëpp dañoo socc seen bañ mënul mu yor géejawaay na góorgóorlu nag jéem a liggéey jéem a jàppale waa Géejawaay jël jeunes yi ñu liggéey lu ñëpp foogul woon moo am tey na jàppale waa Géejawaay. ayca mi ngi noonu kaddu pays suy développé mu dib suñu ab sas sas bi day méngoo xas kon Ahmed Aidara ñi sas suñu na daan laa xas Géejawaay ngi noonu. Mor xobar xobar la woon tey biir Géejawaay ah kaddu askan bi yaakaar naa Ahmed Aidara dégg nga lépp. dof-dof <laughs> mooy li ma la léegi nee naa la kaddu pays suy développé mu dib suñun ab sas sas bi day méngoo xas waaye nag géejawaay xasuñu la dan laa sas yéen bi nag dama lay ñaanal yàlla na diis bis mu diisee ñu ñëw jàppale la si waaye bu oyofee rek ñu bàyyi la ak moom moor xobor xobor ngeen àndaloon sama cadreur bi kenn du moom lu mu jëloon baaxul yànj bran ñaaf sur Salam Vision.